fexe ba am combat bi comme guerre seen combat bi est-ce léegi du ñu ko bàyyi wala ñu wut beneen méthode face à bu war a am. waaw ginnaaw ba sant yàlla julli seen sant suñu ñaari waajur ñuy gërëm monde entier di gërëm euh, di gërëm ahlu làmb bon question bi nga posé dinañ ci sawar a tontu parce que des fois gars yi dañuy jaawale bu ñu xool tey. Modou Lo dafa nekk mbër boo xamee ne si dafa compétir ba doon roi des arènes signé naa France maag Eumeu Sène signé naa Tamba signé naa Louga signé naa Mbour partout dans le monde def naa fa signature est-ce que mos nga dégg bruit heure bu ñu ma woowee damay ñëw maa ngi ñëw yëpp mais defe naa man tey sama image dama koy sauvegarder parce que Modou Lo sportif de haut niveau la ñu nangul ko ko. donc tey bu ñëwee tey bañ koy agressé ci yoon bi am na droit ñibbi ba pare daf maa woo ba ma woowee mu ne ma ana seen 800 policiers yi ngeen indi yi gars yi wax gars ñu ngi ñu attaqué fii maa ngi fii tout près maa ngi ci bur maa ngi gis 800 non xaw man gisuñu ko ba pare dañoo signé ne Modou Lo dañ koy sécuriser këram ba biir stade jëlee ko stade yóbbu ko këram donc man maa war a wax amul bu amoon di dinañ ko indi pourtant am na ay policiers yu ci nekkoon donc nañ ko def huis clos daal. la mooy solution pour Fass Abass. solution mooy nañ ko def huis clos nañ ko def huis clos ñoom ñaar ñu yóbbu leen ci benn hôtel wala benn endroit ñu def fa signature. duñ ko yëgal kenn duñ ko yëgal kenn ñaari ménages signé ku nekk jël sa mbër yóbbu ko ñu jël seen responsabilité man man ma jël sama mbër jëlee ko këram yóbbu ko fiñ ma wax Abdou Bakhoum li muy wax yëpp su dee moom mat na ko na jël mbëram jël ko yóbbu ko fi promoteur bi wax. kenn bañ ñu topp ndaw ñooy mujj ci géew bi ñoom ñaar bu ñu waree bëri nag fii dina doy waar. du doy waar ndax dana am dinañ daje ci géew bi. xam nga ne dana am danañ daje ci géew bi li ñuy def nii yëpp ñun déranger wuñu parce que yàgg-yàgg rek ñun dinañu tëj ak Ama ci géew bi waaw c'est tout